bu la baaru mooy ay mooy lu tàmbalee ci xu bu la nee léwru mooy maska lonk li ñuy wax damma ci arab maska lonk boo ko déggee rek bu buñ danee léwru moom la ndax lan baat bi daf lay delloo ci daf lay delloo ci daf lay delloo ci pulaar bu la nee mooy loo xam ne dafa lonk dafa mel ni weer ni weer wi bindoo baatu liiru lañuy lakk lañuy lakk ci pulaar la pulaar di wax weer boo ne weer nag dafay am fu muy toll weer wi dafay lonk dafay mel ni lu lu ron lu lu xaw a këppu nii rek boo indi woon beneen mu nekk lu ron waaye benn la fay doon loolu nag la tukkuloo yi tuddee masque googu nga xam ne mooy maska lonk bu la nee sawru mooy masque yat masque goo xam ne rëdd rek lay nekk aw rëdd rek bu tàlli mooy maanaam fatxa bu ñuy wax masque bu ubbeeku kooku mooy sawu waaye bu la nee euh, tongu tongu mooy masque xaalonk xaalonk euh, da mooy xaalonk euh, gis nga bu ñu defaraan am na bant bu ñuy defar wut luñ ci ñaw wala luñ ci daaj lu mel ni paaka loo xam ni dafay dagg donc googu da koy yéegal dafay kawe ci kaw garab di lox loxi nga di ko ñu daan ko wutalee di ci wut meññeent wala ñu di ci fàqal jur gi ci garab yi ñax mu ñu lekk lonkukaay yi mm, boo demee ci dëkk bu ci ci bawal am na lu ñu tuddee woon bant bu gudd boobu nga xam ne mooy jëm ca kaw bant boobu dañ ko tuddee woon balaxu balaxu baat ba dellu ci arab mooy lu lay jot ci dara lu lay yeggale ca kaw lu lay yeggale fa nga bëgg a yegg ñoom ñu di ko wax balaxu waaye danañu koy wax itam lonk su fekkee ni ñaw def nañu dara ca bopp ba loo xam ne mën naa dagg la ca kaw wala mën naa fàq la ca kaw mu in mu ñëw ñu tuddee ko lonku kooku la ñuy wax tungu mooy xaalonk noonu lay mel eh, bu ko defee xale bi boo ko jàngalee xaalonk am na ci wolof ñu koy wax du ñu ko ne xaalonk dañ ko naan ablonk <laughs> ablonk ablonk miim nu nara mooy boo wolofal di ijji njàngum fatiha bi ba siin mim mara liif laam laam xa saxiir miim liif gu aj nu nara liif laam raa xaalonk yaa mimara loolu mooy bismillahi rahmani rahim noonu la ko noonu lañ la koy jàngale ci wolof ba nga man ko ñu maasal la ko nag ne la liiral masque gi nga liir ñu nela la kii baa bi dañu koy maas ci suuf muy bi siin bi dañ koy mas dañ koy dañ cay mas masque masque néeg muy bis miim gii di mimara ba siin mimara miim gii ci suuf dañ ci maas alif muy mi muy bis mi bismillahi rahmani rahim bu ko defee muy noonu mooy maska yet yooyu ñu lay wax fatxa yooyu mooy maska yet gi waaye da ngay masque bu dee masque ak suuf muy kasra bu dee ñaari maska yu ñu tegle mu tudd tanwiin waaye euh, euh, bi yi nga xam nag moom lañuy wax xaalonko di tungu mooy xaalonko ablonko miim liif gu a nunara muy rahmaani jimbi nag boo ko déggee ma la ne baaru jimbi kii baaru jimbi kii baaru fóori li la siina yoonus wa ma min dabbatin tëgg bee ngi huut masalul jannatee ngi raadiqat makkaraa nga naxli wa araf naa nga njenge inna laaha yu daafu njool ma jëlub xaaj doon naa fi sànq saar wu ñuy wax njool tudd ma yaar yëpp nga moomin wala rahim nahum afa xasibtum yaar yëpp nga moomin wala tujaadilu yëpp nga an kabuut yaalamuuna ruum wa yaraqul innama ayatukum yëpp ngi saba faakihina tuur wa kam min malakin ca naj mi rahman bopp sar bu bayaan sawa on ca munafiquun bi ma la ci laa tuddale woon jimbi sànq kon am nga jimbi mooy asra mooy diis boog mel ni fa ma leen wa ulaika humul mu'tadun ulaika humul mu'tadun waññal da naan benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk benn ñaar ñett ñeent juróom am nga foofu fukk juróom ko juróom yaa ngi ko am ca suratu fan suratu tawba yaa ngi fa am wa ulaa'ika humul mu'taduun waaye ñëw ci xumus li ñuy wax cinq cinq les dix la woon waaye yaa ngi ñëw ci xumus cinq cinq boo ko déggee mooy juróomeelu aaya juróomeelu aaya ak fukkeelu aaya kële fukkeelu aaya la woon amoon nga ko ca sóoratu Tawba waaye kii juróomeelu aaya la boo xam ne juróom yi juróom da ngay wel ni kuy wax ni ihdina siraatal mustaqim bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in léegi nga ñëw ni ihdina siraatal mustaqim ca suratu fatiha kon am nga xumus bi nga amee xumus dafay am baat yu ñu la ciy leeral ndax yii nga jàng yépp am na yu nekk ci biir yoo xam ni buñ la ko bëggee jàngal ci wolof pour bindkat bi yow mi bëgg a tàmbalee bind alquran nga xam ni mokkal nga bind moo ci des li ñuy xool ba xam li nga bind li nga mokkal mokkale nga ko ni ñu ko bindee ak la ko jàngale wala danga koo jàng njàngum gëmm ba man ko léegi nag li koy leeral mooy da ngay ñëw ñu jox la kayit yi doy sëkk ak daaju doy sëkk <laughs> ni la bindal boo bindee ni koy waxee it ni nga koy waxee it ginnaaw jàng euh, prononciation bi jànguloo ko ci arab te nàmpuloo arab ci biir bindin wi danañu la jox ñaata xeeti daa ñaata xeeti daa yooyu bu ko defee dañ koy delloo ca suñu sang ba suñu mag ju baax ja Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall Fadilu mu Cheikh Mouhamadou Aminata Fall xeeti daa yi mu tiim ak la mu bind ci ay kaamil daa ju xonq daaju wert daa ju ñuul ji nga xam ni ca ngay bindee di suqi di sadda di maas ba nga xam ne li ngay wax ni mu leere ak ni mu rafeteeg ni mu wowe koŋ dara tooyu ci maanaam dara dara jàddu ci dara sikku ci li nga bind itam noonu lay mel ñu xam ni kii li mu bind macha allah lu mu xam la kii li muy jàngale lu mu xam la kalimatu kàlla dafa ñëw ci alquranul karim Euh, lu mat fanweeri yoon ak ñett maanaam 33 fois ñëw na ko bañ ci tàmbalee mooy ba tàmbalee ca kaw ndax kàllaa yi li muy bari bari am na lu ci mag ñi wax dañu ko ne kàllaa li ngay bari bari yeggoo ca kaw yeggoo ca xaaju kaw ba maanaam ci xaaju xaaj bi ci digg bi la yem ndax alquranul karim boo ko dee xaaj tey ci digg bi xaaj baa ngi ci biir sóoratu kahfi bu ñëwee ci xaaj yi ak ñett ñett yeeg ñeent ñeent yeeg fukk fukk yi dinañu leen leeral loolu fa xaaj ba toll fa xaaju alquran toll ci suratu kaaf waaye tey ci kàllaa la ñuy wax kàllaa nag dafay yeggul suratu mi ngi yem suratu Maryam moo ñu ne ko kàllaa li li ngay bari bari yeggoo ci xaaju kaw ba li ngay bari bari yeggoo kaaf loolu la ko mag ñi doon wax kàllaa moom nag fa mu tàmbali ci suratu Maryam dafa tàmbali ci kàllaa sanaktubu ci suratu Maryam waaye boo ñëwee ci suuf dangay gis ni kallaa la yum badan na ca suratu Humasa su boobaa nag ginaaw yeggul kaaf te yaa ngi ñëw ca Mariam ñëwaat ci saar bi ci suuf dangay xaajale kàllaa yi dafa am kàllaab kese nee naa la kàllaa kese mooy sanaktu bu ak kàllaa bi mu ne kàllaa la badana waaye kàllaa yi kooku dafa ñëw ci alquran ñetti yoon kese kese kese kese kàllaa yi ci des ñëwee neneen kàllaa innaha moom borom bi tabaraka wa taala mu ngi koy wax ca kalla inna kalimatun huwa qailuha min waraihim barsaq ca suratu muminuun am na wula wu tafasir yoo xam ne dañoo wax ni mi ngi wàccoon ci jaafar ibni abi talib mooy bi nga xamee ni ñu ngi koy laaj loo bëgg te muy daanu ci xari mu ëttata mu ne bokk na ci lisaanul xaal borom bi ni ko loo bëgg bëgg ñu defal la ko mu ne dellu si ci toolu xare bii rek dellu fii ma nekkoon rek di xeex ba lii dal ma fi rek ngir yëkkati kàddu yàlla rek lii rek laa bëgg ñu ni ko àddiit ah, kooku mu mënatul am faatu am na ba noppi barsàq rek ngay mën a nekk waaye dund gi moom jeexal nga fi kenn du fi dund ñaari yoon kàllaa min waraihim barsàq ndeysaan kàllaa inna kàllaa inna kàllaa inna kalimatun huwa qailuha mu ne loolu ay wax la rek am na itam yeneen tafaasir yu ñëw di wax ci ñi nga xam ne itam nag nekkuñu woon ci njub ba jóge fi naan yàlla delloo ma soo ma delloo àddina dinaa def lii dinaa def lii dinaa def la nga ma sant dina lépp loo ma tere dinaa ko bàyyi du ma ko def dinaa déet looy wax la rek kàlla inaa kalimatun waqaa'iduhaa min waraa'ihim loolu day wax rek ba euh, sukuraat ñëw na dee rekk ci des amul bàyyi ma ma dellu defaat leen bu delloot na mu defoon lay def loolu yàlla nga koy wax ca suratu mu'minuun caaya eh, téeméer ba waaye kalla innahaa lazaa ba yàlla di wax ne ah moom day di biir te biir moom sawara rek sawara rek yal ci yàlla musal kalla innahaa lazaa yàlla nga koy wax ca suratu maarij ci ay fukk ak juróom ay quinze suratu maarij kalla innahaa tazkira ngi koy wax ci suratu abasa abasa watawalla an jaahu al ama boo demee abasa aaya onze aaya fukk ak benn yàlla nga fay wax kàlla inna taskira waaye ka annahu moom dafa ñëw ci alquran juróomi yoon ka annahu dafa ñëw ci alquran juróomi yoon ñu tënk ko tënk bu wolofal muy tënk ko ci lan zuhuru waji zuhuru ñett ci baat ñetti lettre la ñetti lettre yooyu mooy wa mooy za bi ma leen doon wax léegi soit boo xam dañ caa samp muy to dañ ca samp alif muy to ñu teg ci point muy za léegi nag ñu masko ko zu zu boobu ak hu mooy ha ak ru mooy raagu ñu mas lonk ak waaw mooy wa ak jiim di xaalonk mu def point ci suuf muy ja mooy zuhuru waji loolu dañ ko tënk ci wolof ni la baatu baatu ka annahu ñëw na ci alquran ñetti yoon xamsa maratin mooy juróomi juróomi yoon ka annahu warada fi alqur'ani alkarim xamsa marat bu njëkk bi mooy ka annahu zullatun ci suratu araf ay 70 ay 170 téeméer ak juróom-ñaar fukk ba yàlla di wax ne ka annahu zullatun loolu boo demee ci suratu araf da ko fay fekk moo tax ñu maasal la ko zu zu boobu ñu defal la fa ni mooy première bi ñun la ñaareelu ñaareelu ñaareelu ka annahu mooy ka annahu huwa ci nam namli ci suratu namli aaya ñeent fukk ak ñaar aaya 42 ba fa demee euh, ba Balxiis ñëwee te ñu di ko laaj naan ko ndax siis bi sa siis ba mu ne ka annahu huwa waaye boo demee ca ka annahu ru'uusu ka annahu ka annahu ru'uusu boo ko liiree ka annahu ru'uusu shayatin ba yàlla di wax ci suratu saafaat ci aaye juróom benn fukk ak juróom aaye 65 suratu saafaat danga koy fekk ka annahu ru'uusu shayatin foofu it ka annahu ñëw na fa muy ñetti yoon mooy ra bi mooy zuhu bu des waaw waaw bi mooy kan mu ni ka annahu waliyun xamim waaye wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha kon waaw gi ñëw na ka annahu waliyun xamim ka annahu waliyun xamim defe naa ni wax nañu ko ca suuratu fusilat ay 34 fanweer ak ñeent ay fanweer ak ñeent fa la ñu waxee Eh, ka annahu waliyun hamim waaye ka annahu jimalatun zufrun waylun yawma idin lil mukadibin boo demee ci suratul mursalat da ko fay fekk moo tax ka annahu daal ñëw na ci alquran lu mat juróomi yoon yoo xam ne dañu ko tënk ci wolof tudde ko zuhuru waji buntu fastajaaba loolu la wolof tudde woon jaaba ndogaan jaaba ndogaan ñu lay jàngal wolof ni la liif li ni la xaaloon ko miim liif gu aj liif gu aj yi am wala liif gu dog am na liif gu aj dañu koy teg ca kaw am leneen lu ne ci kanamam tax comme rahmaani boobu dagguñu ko waaye bu ñu ko daggoon turne alif bi yéegal ko liif gu dog lay tudd waaye dañ ko ca aj indi nu naraga moom kese taxal ca nu naraga waaye bu ñu indi woon nu naragi moom kese ca gannaaw lay nekk ko defee nuun googu nunara googu day taqaloo miim bi moo tax dañuy wut lif ga aj ko ci kaw waaye kii lif gu dog la lif gu dog moo tax ñu tuddee ko fasta jaaba ñu tuddee ko jaaba ndogaan mag ñi ne nañu la jaaba ndogaan yett la jaaba ndogaan yett la mooy jaaba ndogaan yi nga xam ni ñett la dangan fasta jaaba lahum fastajaaba lahum boo ko jàngee ci alquran rek delul saratu ali imran foofa nga koy fekk ci ay téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom waaye yemul foofu de ñetti jaaba ndogaan yi kon defe naa ne dinañu ko ci dinañu ko mën a matal ci ci ci séquence bi fastajaaba lakum da nga koy fekk ci suratul anfal mooy ñaareelu fastajaaba bi boo demee ci suratul anfal da nga koy fekk fastajaaba fastajaaba lakum waaye ci aaya juróom-ñeent lu neuvième aaya la waaye fastajaaba lahu yaa ngi koy fekk ci suratu Yuusuf 34 ci aaya fanweer ak ñeent loolu tax na tënk yi nga xam ne alquran mu koy tënk te di la ko wax ci wolof di la ko wax waxin woo xam ne ñi ma la ko tàmbalee rek daf lay tënkal lu bari def nag di la ko leeral ba yow mi nga xam ne yaay jàngkatu wolof bi yow mi nga xam ne yaa dégg wolof te dégg koo arab yow mi nga xam ni yaa tiim xale yi bëgg ñu man alquran di ko bind mu set wecc leer nañ lu jommal arab yi du mu jaaxal leen foo jaar ba man lii te arab mu jaaxal leen foo jaar ba man alquran ba far leen ci man ba concours international am Sénégal moom jël première ba ci làkku wolofam bii mu jàng ak làkku pulaaram bii mu man te namp ko waaye bii mu ñëw jàng mu man ci ñi ko nàmpoon bu ñu ñëwee rek leeralal la ko macha allah ku toog ci daara ji daan xëy toog ci dóom ba xëy taal matt ma wala nga dajale ji ay neefere ñëw taal fexe ba mu kawe weex taal nga xam ne fu mu jege fu ne boo fa toogee weex taal ñu ne la weexi yére rek wala weexi tànk rek taxul ndongo toog ca daara ji déedéet dafa am lu taxoon mu toog foofu ca dóom ba booba dóoma amoon booba matta amoon ñun yàlla tombé leen ci pétrole ñu doon taal pétrole ji taal sondeel ba courant fekk nu ca nu di ko taal am na xale yoo xam ne ba ñu juddoo ba léegi xamuñu luy loolu xamuñu luy matt ma xamuñu luy ndéef la xamuñu luy pétrole ba wala xamuñu luy sondeel mbaam bu ñu ko gisee xamuñu woon ni taal ko toog di jàng ñoom xamuñu woon ni nit dana mën a jàngee ci loolu wala ñi jàngee ci loolu ba jàngal leen xamuñu woon ni ci loolu la ñu jàngee waaye ci loolu la ñu jàngee woon ba yegg si tey bay jàng ci courant bi ba yegg si tey ba ku ci eh, eh, eh, yenn yenn yenn peeru lunette du ba ba ba bala koo am wala bala koo nit ki mën na njàngaleem di di xaw di tardé ba keroog peeru lonet yooyu mu di ci door di jot de ay bëtam door a mën a continuer waat tey saa yoo xëyee dem ci benn hôpital ñu gaawantu xool la fi saa seeg saa si diagnostiqué xool ba xam yan yow yan weer nga moo baax ci yow nga daal di koy mën a takkaat wéyal sa njàngale wala nga wéyal sa njàng loolu yëpp ci xéewal gi nu yàlla di xéewale la ñoo ngi ko koy sant tabaraka wa taala kon xamin wi ci alquran mën naa gën a yomb mën naa gën a gaaw waaye boo xëccoowul ak seytaane mi nga xam ne it bëggul mag mu jàng bëggul gone gu jàng bëggul nit ki dañ réer itam pour nga yewu ci al alquranul karim mën naa yeex waaye bool bu nekk insha rabbi la borom bi waxoon rek afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha dina woon itam jàng leen fa zakkir jafartalante leen fa zakkir wone leen fa zakkir jàngale leen kon jàngale ci am solo nañ ko góorgóorlu jàngale lu ci waay man bu ko xeeb bali xoo an nii bu aye lu ci waay man itam bul ko xeep def ko ci alquran nii nu ko tàmbalee nag incha allah fas na nu ko yéenee wéyal nu mu gën a kawe nu mu gën a xóote ba ñu xam baat yi daal ni ko wolof yi doon jàngalee ba mën a egsi fi tey ba ñu mën cee raw tey ñi nga xam ne ñoom nampoon nañu arab